أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ا مبوك يي نيغي لن نوي بو باخ دي لن جاجيخون بو باخا باخ دي نوي ديجا نيغا خامني ييب نيغي سويت جوايز انيفرسير يالا يالا فاي لن يالا ميني دوندي ني نكاي غينا فول ريك دي فول دي نوي بيب كيب كوي سينيغال مو ملي داما غيس ني وا باسيف سين وادي نيلا نيو دا فو القران جانغ القران dégg naa am na as ustaas yu daanu ay gàngore ak ay kiiwam ñu jël photo Macky Sall taftale ko ci wet ma bëgg wax waa Pastef d'abord ne loolu ñu ko jox bu bàyyeekoo ci ëmmat famille ëmmat dem bu sookoon yàlla yàlla bu dël seen fan ma leen wér président Macky Sall daa bokk ci ñi nga xam ne ñoo fay de télé mu yor président Macky Sall moo moo ci taxaw ko ñu defal ko loolu naa ci indi ay firnde sama page Facebook depuis 2019 ñaareel bi mooy Euh, jàng alquran jëfee ko ko sëñ Mansour Sy borom daara bi yal na yàlla yokk yal yàlla euh, nu mu tudd sax taas si barkeem doon na wax ni ñàkk koo xam maanaam am ko te xamoo ko am ko te xamoo ko ñàkk koo xam te am ko moo ko gën Ousmane Sonko boo liiree aaya xam nga ko maanaam am nga ko xam nga ko waaye jëfewoo ko لولا يالدي واخنا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا مانام يالا نينا مثل الذين حملوا التوراة نيغا خامتيني غادو نيو تيري ديكو لير نيني دانو اي غانغو ديكو لير نيني دانو اي راب te jëfé wuñ téré kama sal himar ñi ngi melni ay mbam seuf yo xam dañ leen safi téré donc loolu di tax ma wax ko mooy Ousmane Sonko keroog ba ngay wéet ak jigéen bu dul sa jabar wéet ak moom ci benn néeg téere bi da nga koo fàttewul aay yi da nga koo fàttewul yàlla mi la bind da koo fàttewul parce que bu nekkee téere bi la la doon def da la koo tere bu nekkee aay yi la aay yi la maanaam aay yi la zabbi yow daa bari bu nekkee yàlla nag. bu nekkoon jàpp nga ni raqib ak atit ñu ngi nekk sa mbagg yi di la bàyyi xel doo fa summeeku doo fa wéet doo fa sëy bañ ne jiiñ ba coow topp la wala bu ñu bàyyee aaya boobu mënoon nga xuus nànk dem ba xaaju suuf bi ubbi suuratul munaafiquun iza jaaka al innaka rasulullah wallahu yashhadu innaka rasuluhu wallahu yashhadu inna munafiqina munaafiqina ha, donc dañuy bëgg wan ni au fait gëm nañu yàlla dañuy bëgg wan ni ñoom au fait ñu gëm yàlla lañ yàlla ne la maa ngi seede ni ñoom ay fenkat lañ wa izaa ra'aytahum tu'jibuka ajsaamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim كأنهم حشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم qaatalahumullahu annaa yufakun kooku aaya boobu mën nga koo moomit mooy wa izaa ra'aytahum tu'jibuka ajsaamuhum ñi yar sikkim bi fii ca kël tubay fii jaay yaa baax fii warax waraxi bu ñu wéetee def neneen tu'jibuka ajsaamuhum day yéem niñ mel wa in yaqulu bu ñu waxee tasmaa qawlihim maanaam kàddu yu neex lañuy am kàddu yu kàddu yu neex rhétorique bu neex littérature bu neex wax ju neex la ñuy am bu ñu waxee rek ñëpp topp leen too jëba ko ajsaamu way yàqulu tasmaa la xaw waaye ka addahum xusubun musannada bu ñu téemee téere bi jàng ko bu ñu taxawee nit ñi yar sikkim waaye bu ñu wéetee jigéen ñi dañuy summeeku ci jigéen kanamu jigéen bu leen dagan comme jaww loolu moo tax yàlla ne ah wa in yàqu tasmaa li qawlihim ka annahum xusubun musannada comme bantu nuwéer waaye ñooñu tamit yaxsabuuna kulla sayhatin alayhim foo leen fekk dañuy xuloo foo leen fekk rek dañuy parce que lu waa ñu ne ñoom ñoo tax complot d'état complot droit complot lii complot lii complot lële complot lële yàlla nee na humul adu ñoom ñooy les ennemis de la paix ñoom ñooy les ennemis de la de nu mu tudd sax de la sacralité ñoom ñooy les ennemis de l'union des cœurs ñoo ñoo ñooy noonu islam fahzarhum dëddu leen qaatalahum allahu annaa yufaku fu ñu mën a jublu rek. musibam yàlla dina len dal bu la nexon tamit Ousmane Sonko nga dem ci yeen aya manam kan bi yow min la dun bakal ila nas li fi nek ci ay aya yo xamni ne suñ ko ubbi won jang ko maanaam benn bu nek ci yow rek aya bo xamni bo boo rek yedd na la aya la bo xam kan, bu nek rek la bo wéetee rek yedd na la amo yar amo teggin do wax lu rafet do def lu bax do def dara kon bir mi du ubbi alquran ko xet dede gis nga xam-xam fi suduri rijal ci xol lay nekk fi fii butooni kutub du jang bi mais xol bi la wax yalla dana xam wa naqru aqrabu ilaykum min hablil warid parce que xol bobu moy tax téere bi lol ngay jang am comme aya xol bi maîtriser ko ba nga xamanteni bo jakarlo jigen bo xamanteni mën nga ko tak jabar nga tak sa gaño nga tak sa awra nga sa awra tak sa gaño xamne yalla nga tim xamne yalla nga lay gis xamne malaku kiram ni nga lay gis lolou la jang bi di jeri nga wetal yalla ragal yalla bo toge ak nit ñi ak bo wété ak nit ñi mais ko faté bis buddi bobu ngay dox ba yalla dina wër dang ko faté wul donc euh Pastef wut len yenen di lay mo gën nit ko ubi alcorane rek ay suñu président mën na jàng alcorane sen président mën sen président amana dako am manam amana dako wax dako manam ni sëñ Mansour waxon am ko ta xamoko ñak ko am ñak ko ñak ko xam ta am ko moko gën manam am ko ta xamoko ñak ko xam ta am ko moko gën xam alcorane amul jëri mais téye alcorane mo am jëri donc loolu daal mooy nga xamante ni bëggoon naa leen ko wax ci jumaa bu baax euh, dañ ñaanal yàlla yàlla yàlla may leen salaam donc Ousmane Sonko est un cancer qu'il faut extirper du corps social sénégalais voilà et man moom incha allah balaa may pare ci moom Sénégal yëpp dañu xam mooy kan sant naa ne gërëm naa ne wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu